رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله لم يلتمد عليها ولا الليل

Mang ngi lay ñaan nak ma lu nit ñi fasiyene bëgg ma ak ciofel ba nar mako tabaxal ay kër nañ ko def ay neegu yalla benen bi borom bi maa ngi lay ñaan yalla bu ñu eh, sama njabot ak njabotu keneen moy culte personnalité mu ne ko benen bi maa ngi ñaan borom bi nga may ma suuf su lew bo xam dina fa mëna tour sama ñaq eh, formé fa jaamu yalla yi jangal leen fa tarbiyé leen fa lool moy ni jag benen bi mu ne ko tamit maa ngi lay ñaan lo mom na ra may fi nang ko denc bu ëlëk sa ngërëm rek laa soxla moo tax Jaksaaw euh, soo gisee mooy titre foncier Maam El Hadji fii dañ ko fee dalal ndax fii dëkku ceddo la woon ak ay buuf ñoom ñoo sàkkoon mu ñëw fii premier gàmmu fii dañ ko def defee 1902 góor gu ñu naan Jibril Guèye mu ànd ak Maam El Hadji Rawane Ngom juróom-ñaari nit lañ nekkoon mais njëlbeen day sew mu ni woon nag dina dem de ba mbir mi àgg feneen foo xam ni dina ëppi loxo ëppi loxo mooy waaye du génn cëslaay bi donc Jaksaaw boobu ci la ko muy ja ju ba jang jangale lo rek lu mos def ju julli ba bay dundee lu lew dundel ko njabotam dundel ko jamu yalla yi mu àndaloon. bi nak maam El Hadj légaliste la woon gis nga bi taxawal fi ak jumaa ju mag dafa am autorisation buñ ko jox gouverneur général arrêté euh bo xamni mom moko signé autorisé ko pour mu samp en 1903 1904 ci la jumaa ji zawiya bi ak ci la maam Abdou Gane àdduna maam El Hadj fii la nekkoon soo gisee ñu naan zawiya zawiya dafa am ñetti pàcc gis nga fii ñu nekk xam nga ñu ngi ci kër ci biir jàkka ji la nekk maanaam këru gan la këru daluwaay la waaye maam Abdou moo fi sampoon bii moo ko modernisé nii maam El Hadj Malick gis ci biir kër gi jàkka ji nekk fii ak daara ji nga xam ne moom dundam yooyu yëpp jàjju ba boobu moo waxoon fii moo ko symbolisé ndax fii la daan génne këram. dugg si jàkka ji julli génn jàngale moo tax amuloon bëkk néeg nee nañ fukki at ak benn yoo xam ni kenn mësu koo gis mu euh, faat waxtu yu juróom mësu koo rate loolu benn yoon boo xam ni dafa nekkoon ci téere yi di gëstu Maam El Hadji Malick nag fii la nekk ak fii nga gis ñu denc ko ñu ngi ko denc mook doomam ju tedd ji El Hadji Mouhamadou Mansour Sy mi moom moo ko yaral boppam ñu génnee àdduna mu ànd ak sëñ Babacar El Hadji Abdou sëñ Babacar ko wutu ñoo nekk fii sëñ Babacar a ngi fii ci kanam alaaji Mansour nekk fii alaaji Abdou moom lañu denc fii ak soxna feetu Ñang moom mooy yaayu ñoom alaaji Abdou Aziz Dabaax maam El Hadj Malick fi ñu ko denc du woon ci biir jàkka ji jàkka jee ko fekk si maanaam bi maam Abdou defaraat jàkka ji ci la ko jàkka ji am mais fi ñu ko denc dafa génnoon jàkka ji léegi nag mu nekk fii di jaamu yàlla ndax lu tax lam doon wax di ko jàngale da koo jëfe moom moo ci doon jiitu moom mosul woon ni ñu naa leen kaay leen ñu dem tool wala dem leen tool dafa daan wax kaay leen ñu dem tool suñu àndee ñun ñëpp ñu ànd bàyyandoo lefandoo jumaa ju mag jee ngeen nag dem mu dégg xalifa bi lancé ko pour ñu reprendre travaux yi jumaa jooju 1904 lañ ko sos gis nga su ngeen demee am na ñaari juma benn bi ngeen njëkk a jot en banque la ban boobu maam El Hadj Malick boobu la fa bàyyi tuile yi ba léegi kenn changé wu ko dañ koy nettoyé rek poutre ya fa nekkoon dara amul fissure xam nga liggéey nitu yàlla 1904 ba 2019 segam juma moo dem ba doo fa gis fissure doo fa gis max doo fa gis dara waxtuma laa nag liggéeyu nitu yàlla maam Abdou Aziz Dabakh nag le 8 janvier 1979 ci la ni ah l'islam de amatul progrès fondation mais day am progrès matériel jumaa ji sama bàyyi fi bàyyi woon ñu tabaxaat beneen jumaa moom moo teg première pierre bi 1979 la di ci dox di ci ñot ñot yi fi ñu dool jumaa ji li sëriñ bi wax ne dañ ko war a àggale gros œuvre bi pare na maanaam ñu ngi fay julli bu yàgg ba léegi jumaa ji nag maam Abdou bi ñu koy sos daf ni woon mën naa ko def wala mën na am ay mbokk yu ko def ba ci roi Arabie Saoudite bëggoon na ko financé mu bañ daf ni ko dama bëggoon comme néegu yàlla la jaamu yàlla yëpp mën ci barkeelu su ngeen gisee l'histoire se répète démb xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour loolu bàyyam waxoon loolu la waxaat daal ni dañ koy teg ci commission bu leer laaj loowuñ kenn waaye jumaa ji moom mooy àggale finition rek moom moo ci des loolu tam dafa am autorisation daara bi mu samp fi dem ci zawiya bi lata mu koy def dafa am autorisation parce que moom il était légaliste autorisation d'enseigner l'âme comme ni ñu koy gis tuba bi jox ko parce que mission lepp dafa leer da ngay gis sax ñu naan la jakkay tidiane jakkay lanen jakkay yi jàkka yalla serigne bi li wax dem lu leer la kenn du jitu paaka ci mbaram mom dafa waxee rek orientation waxee ni yéeneem mais mise en œuvre bi kooku dañuy xaar contour yi mais limu wax lu am solo la parce que tey jàkka du fu ñuy blanchir lieu de blanchiment de capitaux parce que su dee dañoo bàyyi woon lu ne dugg fi ku ne indi fi sa dërëm di fi dugg lu lew lu lewul sa am na loo xam ni borom bi si boppam moo lay simple boppam moo tax mu ni anonymat kuy def defal ngir yàlla beneen bi tamit li fi dugg na nekk lu lew parce que dañu la eh, ijaaba mooy ñaan mu nangu mooy ànd ak lekk lu lew Maam El Hadji Malick soo gisee lii ñaan gu nangu la gàmmu mais lan la daf daan bay dundee addiyee sax mosu koo nangu ba pare sellal borom bi amul lu mu soxla lu dul lu sell donc jàkka néegu yàlla la mais doo dem si jàkka di fa dugal ndabu tilim wala lu tilim loolu rek la sëriñ bi wax du question ya jàkka finition rek moo fi des mais ñi mu ko teg seen loxo nag ñooñu ñu am pas-pas lañu ñu am yéene lañu gis nga tey fii ñu nekk tey xar kanam gis nga ni mu soppeekoo kenn si ñoom ku ñu naan El Hadj Bokar Ndiaye dañ ni ma El Hadj lancé wul appel d'offre dafa toog rek. moom la yàlla baaxee lu bare bari mu jag-jagal ko ñu mel noon nag bari nañ ci kër gi nekk nit ñu baax ñu sell am yéene mais ma sëriñ bi bëggul ay nit rek gàddu ko président de la république waxoon na fi daaw jeg ne su ngeen ma mayee ndigal ma àggale jumaa ji ñu tànxam lu ko ndax bi lu mu bëgg mooy képp kuy taalibe parce que moom alaaji Malick mosul wax sax tama taalibe dafa doon wax suñu mbokku taalibe sëriñ bi dafa bëgg képp kuy julli sax waxuma taalibe tey muy foo mënti bokk nga dugal ci sa ñaq ndax soo demee Maroc Euh, grande mosquée Casablanca bi ko Mouhamed euh, Hassan II di def daf ni bépp marocain na nga indi lu gàtt gàtt deux dirham deux dirham matul sax cent cinquante francs dafa bëggoon marocain yëpp maa nga ci yiw bi sëriñ bi tam yiw boobu la bëggal réew yëpp looloo tax mu joxe démb appel boobu. sëriñ Abdoul ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay sant bu baax a baax di waa Dakaractu di ñaan yàlla tamit yéen tamit lépp luñ màng ci yiw parce que yéen a ngi chara yéen ngi génne xabaar yi di ko def ni mu war a ame yàlla na yàlla barkeel seen liggéey bi. السلام عليك يا يا رسول الله السلام